asalaamaaleykum mbokk yi xibaaru tàkkusaan si li ci nar a gën a fës bokk na ci li ci nar a gën a fës accident bu métti am foofee ca diwaanu Fatick ca fu ñuy duppee sañ niki démb ci guddi la woon nag kenn ci ñàkk bakkanam ca saa saasa keneen ka nga xamante ne nag da ko mujjoon a supporter ci moto ba mujj na ñàkk bakkanam niki tey foofee ca Fatick dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi loole sax di ngeen ci àddu wàccaayu màggal bi ak yi dem beeg dëkk bi accident yi nees lañ ci war a mën a def ba daal ci andi saafara wala boog mu gën a wàññeeku ci wàllub xew-xew boobee. di ngeen ci mën a àddu ci njeexitalu xibaar yi lay doon lii la di perturbation maanaam séddalib ndox mi dina am ab gàllankoor ndakaaru ak li ko wër seen au àndal ceeg ak lii di SONES ñoom nag dañoo fas yéene tàmbali ay liggéey niki ëllëg ci lu jëm ci wàllub euh, tuyau bi nga xamante ne nag moom moo bàyyee ko ci kër Momar Sarr jaar Mexe ak fii ci front de terre foofee yëpp dinañ fa andi ay coppite loolee nag jàpp nañ ne fii léegi juróom-ñetti fan ci weeru octobre lay lépp daal di dellusiwaat dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi mbënd bi ak it la bu wundu loraanga ya nga xamante ne jot na koo jur foofee ca Kër Massar unité 14 ñaari téeméeri kër ya fa nekk lu ëpp juróom fukki daal dinañ leen génne ci ndox mi nag loole ginnaaw càkkuteefu askan wa fa ci brigade hygiène bu Rufisque ngir rek daal di fa ñëw andi fa pompe ak yit fexe dindi fa lépp lu jëm ci wàllup yoo ak lu demee noonu le dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ci jamono sile ñu farandoo ko Souleymane Teliko maanaam kuréel gi leen ëmb di UMS ñoo ngi janoog way taskatu xibaar yi ngir rek daal di jàppal tànk seen njiit rawatina ci jamono yi nga xamante ne nag moo ngi am ñol ñol bu dox digganteeg moom ak seen jëwriñ di Malick sal jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu kaaraange biir réew mi dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar ci noone mbas bi niki bésu mu tey ji benn nit ñàkk ci bakkanam fanweer ak ñaar amee ko bees lu toll ci ñaar fukk ak ñett yi kenn ci ñoom xamul fan la ko jële loole buñ ci jeexalee teg ci yeneen jotaayu xibaar wax sa xalaat lay doon ci 88 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 li ñuy waxtaane bokk na ci dem beeg dikk bi l'accident yi ak it lu jëm ci wàllub mbas mi ban xalaat ak ban jàngat lay doon ñu ànd ci Pape Abdoulaye Dieye mi féete ci xaral Birama Ndiaye. ñaari fan aljuma ci weeru octobre atum ñaari junni ak ñaar fukk ginnaaw bi ñu leen nuyoo xibaar yi ñu doore ko ci tiis ba am foofee. ca Sagne nekk ca commune bu Niakhar niki biig nag la fa benn accident am ay moto ñu ñu daal di supporter ñoom ñoo dugg ci benn camion ba nga xamante ne nag dafa ko ci biir lëndëm bi te kenn gisu ko fa saasa kenn ka ñàkk bakkanam keneen ki nga xamante ne nag dafa amoon ay gaañu gaañu métti ba ñu rawale woon ko ci hôpital régional bu Fatick mujj na ñàkk bakkanam nekk sànq foofee ca Fatick nekk yitam ci commune ba nga xamante ne moom mooy bu ñaaxar jàpp ne nag gis nañ ne borom moto boobee dafa am ko mu supporté woon doon dem bàyyi ko Fatick utali yoonu ñaaxar ci noonee nag bu muy doublé benn oto ba fa nekk la daal di tase camion bu bàyyi ko ci biir lëndëm bi amut lumière ñu mujj dugg surux ci biir camion boobee bu ñu sukkandikoo ci seede ya nga xamante ne waaye takku der yi daal di nañ ko indi ci boobu jamono. ngeen fi wéy di fi xibaar yi àddu ci mbirum ndox mi rawatina séddaleem ndox mi jàpp nañ ne dina am ab gàllankoor fii lekk dooree ko niki ëllëg ndaxte dafa am ay liggéey ya nga xamante ne dañ ko war a defaraat rawatina ci production ak itam ouvrage bi nga xamante ne foofee la ndox li bàyyeekoo ci wàllub kër Momar Sarr jaar Mexe ak file di front de terre. loolee nag gis nañ ne équipe yëpp ñoo ngi def seen kem kattan ngir daal di fexe ñàkkum ndox mi nag du am dayo gu ñu fusee bu ñu jàpp ne war na ko am wante ak nu munti demee dinañ xaarandi ndox mi daal si ci normal fii léegi juróom-ñetti fan ci weeru octobre gi ñu nekk Jëri Ba moo nekk directeur de territoire et opération bu seen Sen'Eau ñu teewlu ko ajande Adja Ndeye Marème ñuy war a tàmbali ay liggéey yu am solo la. ci li nga xam ne mooy jumtukaay yi nga xam ne moom mooy indi ndox fii ci Dakar tey di jóge ba Lac de Guiers jaar Thiès jaar Pout jaar Tasset yëpp xam ngeen foofu yëpp ndoxu ndoxu Dakar fa lay jóge euh, li njëkk ci liggéey mooy li nga xam ne SONES moom moo moo koy def ci fële ci usine Mekhe te mu nekk ci dëkku Mekhe bi xam ngeen ne SONES euh, ci projet bu mag boobu bu muy liggéey at yi yëpp ñu tuddee ko KMS projet boobu mi ngi waaj a pare alhamdulilah tey it bu mag ñetteelu tuyau bi jóge Lac de Guiers war a ñëw fii ci Dakar dafa war a jaar ci usine Mekhe boobu dañ leen a war a boole foofu comme ça euh, ndox dina mën a jóge aussi bien ci euh, KMS euh, usine bi fa nekk tey waaye dina mën a jóge aussi ci usine bi biñ fay biñ fay waaje pare su boobaa loolu dina tax ba wax dëgg yàlla lépp luy ñàkk ndox. dina dina dina jeex dootuma wax sax dina wàññeeku waaye dina jeex wax dëgg yàlla fii ci e, jógee Tiwaawoon jëm fii ci jëm fii ci Dakar waaye e, ci période boobu aussi ñun waa Sen'Eau dinañ ci profito pour beneen barab bi nga xam ne bu am solo la daanaka moom mooy xolu système bi ci biir Dakar te mu nekk Cité des Eaux nekk beneen usine dinañ. ci profito pour defar ci ay liggéeyu yu ndëgërlaay yoo xam ne ay at yëpp mënuñu ko woon def ndax xam at yëpp dañu xaw a xawoon am jafe jafe ci wàllu ndox donc da doon jafe ñuy arrêté usine boobu pour def liggéeyi ba nga xam ne fi mu nekk ni wax dëgg yàlla soxla na ko donc dinañu def liggéey yooyu ci usine boobu ba nga xam ne suñ ci génnee aussi usine booy dana gën a mën a taxawee taxawaayam bu mu am ci biir système bi maanaam mën a yóbbu ndox booru plateau mën ko yóbbu euh, Wakam mameel mën ko yóbbu Sicap ak fépp ci biir Dakar donc liggéeye moom la ñu ñoo ñoo nekk i gën a am solo yi nga xam ne moom la ñu war a def ci diir bi jóge ci ëllëg euh, samedi euh, trois octobre jëm ba ci mercredi sept octobre incha allah. ñeneen ñu fas yéene am ab liggéey wala ñu def ko ba noppi bokk na ci brigade d'hygiène bu Rufisque ginnaaw bi nga xamante nag dem nañ foofee ca unité 14 ci càkkuteefu ñi fa nekk lu ëpp juróom fukki kër ci ñaari téeméer ya fa nekk daal di nañ leen génne ci biir ndox mi biñ ca noppee nag ñu daal di leen a pomper ak it daal di ci def bépp taxawaay gi nga xamante ne dina sàlloog wàllu wërgu yaram loole mu ngi amoon ci teewaay Denisia Samb.

suñu yére yi fi yàq soo demee ci biir ni la war na yére yëpp ay saako lañ ko def mais yére yoo xam ne mënutoo utiliser parce que ndoxu taw bi daf ko yàq force bi day jóg nab bi suuf sama doom bu góor feebar na fi sama doom bu jigéen tam feebar na fi sama magu jabar mi ngi nii dafa feebaroon moom tamit ba ñu hospitaliser ko donc vraiment sor nañ trop ah. te amuñu kenn kuñ fi jàppale kenn kenn ñu ñoo koy defal suñu bopp ndox mi taa dafa taa une a sangu léegi nag loolu day indi tànk yu metti ci lu toll ci ñaar téeméeri kër lu ëpp juróom fukki tàggoo nañu ndox mi jamono ji waral askan wi dox ay tànk ngir ñu andil leen service d'hygiène major Mamadou Thiam chef sous d'hygiène bu Tëngéej ndox bi bari te ndox ci kër yi euh, démb la ma préfet département de Jaxaay unité 14 unité 9 mais malheureusement au niveau mi ba léegi mu ngi ci biir kër yi seul unité 14 la ndox bi am kër yoo xam ne libéré ko à peine 54 maisons yoo xam ndox mi bàyyi ko moo taxoon tey ñu ñëw fii tey avec équipe bu sous brigade d'hygiène de Rufisque pomper euh, kër yi euh, pomper désinfection doomi jàngoro yi parce que loolu la ñu waxee les maladies hydriques ak gaal bi mooy wagay affaire yooyu yooyu ci ndox mi la jógee bi ñëwee aussi def nañ cinquante quatre mille yoo xam ko désinfecté am solo pour rien population bi revenir seen kër yi topp seen dund normal taxalin koo xam ne askan waa ngi rafetlu Aliou Diouf kenn la ci ñoom juróomi kii di ko taal muy xeeñ ji yokk soj xale yi amaana tey yàlla mën noonu def ñu mën a for bët ba yandoor waaye Babacar Bari jàpp ne nag solution bi du leen lu dul ay canalisation mais bu ñu nee assez Parcelles Assainies mais Assainies c'est quoi mais c'est pas Assainies HLM fii moom ñu dee lii yëpp HLM moo ñu ko yóbbee pour te dire la ñuy dem jënd suuf yii ngay gis kamba yi yëpp foo gis foo am kamba rek fa lañ doon tibbee suuf pour tabax non soxlawuñu ceeb soxlawuñu ñu ngi sant yàlla canalisation lañ Sambou pour Sud FM. Denisa Sambou ñol-ñol bi dox diggante Souleymane Teliko ak jëwrinam di Malick Sall loole tax na farandoom di kuréel googe UMS ni ki sànq ñoo ngi janoog waaye taskatoo xibaar yi ngir rek jàppal tànk seen njiit di Souleymane Teliko ñoom nag jàpp nañ ne plaignant yooyu nga xamante ne kii di Malick Sall moom moo leen ko yóbbee duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ba tax sax am na yenn ci farando yu nekk fii ci Ndakaaru jàpp ne jëwriñ googe dañ ko war a wàccee dinañ ci ñëwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar ak suñu ndaw la fa coowal Souleymane Teliko ñeneen itam jàppal ñoo ngi koy jàppal tànk bokk na ci kuréel yi nga xamante ne dañuy yëngu di xeex ak ak yelefu doomu aadama rawatina buñ ko salfaañee ñooñee nag gis nañ ne li nga xamante ne ñoom la jëwriñ googee di def di indi ñool ñol ak ay jël ci jël ci loole dafa jóg rek ngir daal di noppiloo ñuy yëngu ci wàllu yoon wante loole duñ ko nangu te itam duñ ko nangu ëllëg te gis nañ ne loole dafa nekk luy delloo démocratie ci ginnaaw Seydi Gassama kenn la fa ñoom moo àddu ci seen ñu teewlu ko El Hadj Malick Ndiaye lépp lu société civile ci Sénégal ñoom ñoo ànd def ko ah ñu koy def nag parce que fu ma nekk nii euh, vraiment euh, dëkk bi dafa toll foo xam ne ñëpp war nañu yëkkati seen kaddu ñu wax te ñëpp war nañu jóg parce que pour la première fois état Sénégal mu ngi commettre agression boo xam ne musu ko def contre la magistrature et contre les magistrats ndax li nga xam ne moom la procédure bi nga xam ne moom la euh, maître Malick Sall euh, initié contre président union des magistrats du Sénégal te ñëpp xam nañu procédure boobu Macky Sall mu ngi ci gannaaw mu ngi koy soutenir te mu ngi koy daf ko daf ko bénir sinon Malick Sall du ñeme egg fu mu egg ni tey contre les magistrats kon vraiment ñun ñu koy considérer comme une agression contre l'indépendance de la justice dañu bëgg pour que juge noppi juge yi topp lépp loo xam ne moom la nguur gi bëgg koy def te loolu la ñu jiital leen fexe ba ki leen jiite ñu sanctionné ko sanction boobu nag doon un signal fort pour tous les autres magistrats yoo yi nga xam ne ëllëg xëy na su ñu leen joxee ay ndigal n'est-ce pas du ñu hésiter pour appliquer ko loolu moo ñu tiital loolu moo tax ñu jóg yëpp su ñu kàddu wax di wax Sénégalais yëpp que li xew tey daf leen concerné il faut que ñëpp jóg ci ñëpp wax ci pour que Malick Sall arrêté pour que Macky Sall arrêté et que ñu bàyyi magistrats yi ñu continuer def seen liggéey. parce que liggéey boobu dafa am solo trop ci démocratie dafa pour garantir képp kuy doomu Sénégal képp kuy citoyen Sénégal sa àq ak sa yelleef ah dafa am importance. ñeneen ñu. coow dox seen diggante bokk na ci Ousmane Sonko ak Mansour fay di jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu pour équité territoriale moom nag jàpp na ne ci kàddu yu mu taxoon la ci gën a euh, taxaw te am na ay preuve yu firnde ne Ousmane Sonko ñëwoon na fa di fa sàkku audience ngir mu daal di ko booleeg njiitu réew mi moom kañ la ñu sàkku mooy rek na Ousmane Sonko daal di ko jox ndigal mu daal di fësal loole ginnaaw bi nga xamante ne nag daal di woon na jàpp ne du dem wuyu ji benn yoon leeral ci lañ ko dénk kii di Mansour fay jàpp na ne tey la gën a taxaw ngir daal di wuyu ji lii la di of OFNAC ak bépp kuréel bi nga xamante ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllup euh, doxalin fii ci miim réew ngir daal di leen andi euh, gindi ci li nga xamante ne jot nañ ko ko dénk ci mim réew ñu Mansour Faye ñu teewlu ko Babacar Samb. agent de l'état la damay wax tey nii nag boobu leen bu fekkee yoon may na ko bu fekkee yoon may ko maanaam mu convoqué man de bu fekkee yoon may na ko mu convoqué ministre du sax maanaam soldat la damay xël dem fekk leen waaye ci lu ma xam ak lu ma gëm yoon mayul OFNAC loolu leen léegi pour ma dellu si ci lu Sonko doon wax maanaam alarba euh, bi bi passé te mu doon wax ni audience boobu leen nga xam ni man maa ko accordé woon man maa ko ko mayoon mu ñaan ma ko ma may ko ko audience boobule am na ba ma ko koy may booba man maa ngi nekk délégation général à la protection sociale et à la solidarité nationale ri par chaque délégation boobu boobule man maa ngi foo jógee en juillet 2014 te audience boobule ba muy am moom moo ko laajoon je répète moom moo ko laajoon ba muy am benn fonctionnaire bu mag moo fa woon te fonctionnaire boobu magistrat woon moom moo teewe audience boobu la waaye nag man du ma wax waxtaan bi nga xam ni waxtaan nañ ko tout simplement dama mënul comprendre xam nga c'est normal qu'un sénégalais soxla gis président mu fu mu jaar ku ko yombalal loolu normal la lu normal koy mooy nit def ko ba pare di ko weddi loolu moo ma jaaxal waaye xam nga dañuy wax ni bu fekkee da nga ni damay xeex système waaye bëccëg bi nga ni ndar kàmm li nga maa koy xeex waaye bu guddee nga jaar ci diggante bunt yi di ko seeti boo ci amee problème kooku du ci man ci yow la waaye damay wax leneen pour jeexal waxtaan boobule moom ci boppam am na benn élément sonor moom moo ko def am na te fan yii passé loo ko def te ci biir élément boobu boobule moom ci boppam nangu na ni audience bi am na wax na kañ la ak wax na ku ko fekkee loolu nag comme yoon may ma man ma génne ko dama koy ñaan moom ci boppam bu mu autorisé bu ko bu fekkee bëgg na ko man ma génn ko bu nee prip ko bu neexee am. ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci mbas mi nikki bésu tey ji kenn nit ñàkk ci bakkanam fanweer ak ñaar amee ko bees. lu toll ci ñeenti nit jële ko ca biti réew ñaar fukki ak ñetti kenn ci ñoom xamul fan la ko jële leeraay yi ñu ànd ceeg docteur El Hadj Mamadou Ndiaye ci junni ak ñaar téeméer ak fukk ak ñetti test yi ñu def fanweer ak ñaar ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci juróomi cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro yi am nañ ci ñeent cas yu jógee bitim réew te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu jas am nañ ci ñaar fukk ak ñett yi ñuy tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci doomu jàngoro ji te xamuñ fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee marist am na ci ñeent Rufisque am ci ñeent Géejawaay am ñaar Wookaam am ñaar Popenguine am ñaar Almadi am benn Cité Douane am benn Dakar Plateau am benn Diamniadio am ci benn Fatick am ci benn Kër Massar am benn Liberté 4 am benn Malika am benn Pikine benn Thiaroye am benn ak Tivaouane am ci benn téeméer ak juróom fukk ak juróom benn si malade yi ñu entrée woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom-ñett ñu nga réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb alxames ñaari fan ci weeru octobre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom fukk ak benn ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci fukki junni ak ñaar ak juróom téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent wér nañ si ñett téeméer ak fukk ak ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak ñeent fukk ak ñeent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 ginnaaw fukki simili ak juróom-ñaar mu tegoo ci juróomi waxtu ñu àddu ci wàllub jëmbët garab gi nga xamante ni jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu alam moo ngi koy def foofee ca Matam gis nañ ne nag xumbutee fi moom moo ëpp loole kàddu ñi nekk ñuy duppee seen bopp ami de la nature ñoom ñoo ko fësal jàpp nañ ne ci juróom-benn junniy garab yi nga xamante ni daal dinañ ko fa jëmbat boo moyutul fukk rek moom moo ci dund ndaxte amut leen la nga xamante ne ñoom sàkku ñu daal di ci boole ndaw yi bu ko defee ñu xëy di saytu garab yooyee ñu daal di jëmbat Matam Abdourahmane Dieng. si jamono ji ñu nekk jëmbat garab lu xew la fi ci diwaanu Matam. il suffit pas de faire ay tantamar ñu ngi basé ñëpp ñëw. le maire il vient karang karang arbre yi ñu planté woon keroog ban moo si dund nañ def bilan bi ñaata arbre moo si dund jëwriñ bi ñu dénk aalam gi di Abdou Karim Sall ñëw na fii ci diwaan bi ànd ak délégation bu takku ngir daal di matale campagne de reboisement bi mu sumb te bile campagne nee nañ jot nañ fee jëmbat lu tollook juróom benn junduy garab souvent am nañu habitude di def beaucoup de bruit dépenser beaucoup d'argent ci ay campagne de reboisement si yoon yi ñu bàyyi ko foofu amul protection kenn du ko arrangé kenn du ko toppatoo yëpp a yàqu alors garab yooyu ñu ngi woon si ay pépinière di dund normal ñu jëlee ko foofu indi ko si yoon bi ñu bàyyi foofu ñu dee ça veut dire quoi parce que baaxul. Abdourahmane Ba agent de développement bu yàgg yëngatu ci mbirum garab ba tax na jàpp na ne nii ñuy doxalee campagne de reboisement bi bariwul njëriñ. Ah, jeunes yaa ngi fi les ASC defuñu dara mais nañ leen jël motiver leen on motive les jeunes soit on motive par ñu motiver leen tous ñu jël citerne yi tous les quinze jours xale yooyu di arroser di def vraiment suivi def protection bi ñu di leen motiver au moins ça va ça va les occuper ñu bañ a nekk fi rek euh, football football football il faut que les les di planter cent arbres bu fekkee benn rek mooy dund ça veut rien dire li seetlu mooy ne mbumbaay bi bëri na lool ci campagne yi Abdourahmane Ba ñu gën ko xamee ci pële jàpp na ni bu dee toppatoo bi du mat nañu bàyyi garab yi ñuy dund ca pépinière yi j'aime la nature képp kuy kuy rey garab bëgguma la donc ngir yàlla bu ñu planter garab yi nañ leen toppatoo ñu dund wala ñu bàyyi leen si pépinière bi ñu bañ leen tooñ. mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. Sud FM ganu bés bi. ganu bés bi di Seydi Gassama Amnesty International Sénégal mu ngi. Uh, addu ci coowal uh, Souleymane Teliko ak jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu yoon sekk nag laaj ak tontu ak El Hadj Malick Ndiaye. ñu ak Seydi Gassama ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay di nuyu auditeurs yëpp. waaw yow nag yaa jiite am na si section Sénégal ngeen def nag yéen banque société civile ngeen def benn communiqué maanaam jóg lan mooy expliquer communiqué ak lu teg bëgg a jóg taxaw UMS. waa déclaration mun naa wax ne lépp lu société civile ci Sénégal ñoom ñoo ànd def ko ah, ñu koy def nag parce que fu mu nekk nii euh, vraiment euh, dëkk bi dafa toll foo xam ne ñëpp war nañu yëkkati seen kàddu ñu wax te ñëpp war nañu jóg. parce que pour la première fois état Sénégal mu ngi commettre agression boo xam ne musu ko def contre la magistrature et contre les magistrats ndax li nga xam ne moom la procédure bi nga xam ne moom la euh, maître Malick Sall euh, initié contre président union des magistrats du Sénégal te ñëpp xam nañu procédure boobu Macky Sall mu ngi ci gannaaw mu ngi koy soutenir te mu ngi koy moom daf ko daf ko bénir sinon Malick Sall du ñeme egg fu mu egg ni tey contre les magistrats ñun ñu koy considérer comme agression contre l'indépendance de la justice dañu bëgg pour que juge yi noppi juge topp lépp loo xam ne moom la nguur gi bëgg te ñu koy def te loolu lañu jublu tiital leen fexe na ki leen jiite ñu sanctionné ko sanction boobu nag doon un signal fort pour tous les autres magistrats yoo xam yi nga xam ne ëllëg xëy na su ñu leen joxee ay ndigal n'est-ce pas duñu hésiter pour appliquer ko loolu moo ñu tiital loolu moo tax ñu jóg yëpp suñu kàddu wax di wax Sénégalais yépp que li xew tey daf leen concerné il faut que ñëpp ci ñëpp wax ci pour que Malick Sall arrêté pour que Macky Sall arrêté et que ñu bàyyi magistrat yi ñu continuer def seen liggéey parce que liggéey boobu dafa am solo trop ci démocratie dafa am solo trop pour garantir képp kuy doomu Sénégal képp kuy citoyen Sénégal sa àq ak sa yelleef ah ça fait importance. waaw ndax léegi waxtaan war na mun a am ba léegi ci diggante UMS ak tutelle bi. mais waxtaan mun na am waxtaan mun na dara dara xewul woon seen lu dul agression bi nga xam ne dañ toog rek jogul ko n'est-ce pas pour fexeel maanaam justeli ko kon tey Malick Sarr su arrêté woon procédure am boobu n'est-ce pas je crois que immédiatement jàmm dafay daal di dellu si diggante magistrat yi ak euh, gouvernement bi parce que encore une fois ñu ngi jóg si grève greffier yi grève boobu jeexagul te grève bu dafa lor citoyen Sénégal dafa dafa lor askanu Sénégal ñu bëgg encore taal beneen safara boo xam ne léegi seen diggante ak magistrat yi magistrat yi nag su dem nañu tey en mouvement dina am ay conséquences yu métti métti métti ci Sénégal yi surtout ñi nga xam ne caabi daf leen féete ci gannaaw kon il faut que nguur gi comprendre ne tey Sénégal mu ngi jànkuwanteel ak ay jafe-jafe yu bëri mbënd baa ngi fii n'est-ce pas Covid 19 ngi fii mbas mi baa ngi mu ngi fii koom-koom bi doxul kon war ñu fi nekk di taal ay front yoo xam ne dañ ko soxlawul nañu concentré ci bëgg-bëgg askanu Sénégal te ñu bay bay front yoo xam ne vraiment day taaraloo nit ñi ci ay coow loo xam ne jaru ko te coow la boo xam ne encore une fois euh, image dëkk bi lay gën a dellu ci gannaaw parce que Sénégal lu muy jaay ci bitim réew mooy euh, dëkk bu la boo xam ne am na justice bu indépendante te li xew tey agression la contre indépendance la justice et contre agression contre indépendance des magistrats. bi ak bi xuloo bi lan ban njeexte la woon a am ci fonctionnement justice bi nga foog. ah mais tey su magistrat su ñu demee ba taxaw eh, liggéeyatuñu mais loolu dina am ay conséquences yu métti ci ci justiciable que bés bu nekk nag. n'est-ce pas Sénégal yi nañu tribunal war nañ fa dem eh, ñiy liggéey ci tribunal mooy magistrat yi eh, eh, ñi caabi féete gannaaw war nañ leen war nañ leen war nañ leen déglul war nañ leen atte loolu magistrat yi ñoo koy def kon mbir mi mbir bu affaire bu sérieux la affaire bu sérieux la sans compter que justement que Malick Sall li nga xam ne moom la jublu su dee am na rek indépendance justice Sénégal moom mooy daal di am ay problème te indépendance justice fu mu ay problème rek politique ku ñu ci biir politique bi dootuñu ko wóolu citoyen yi dootuñu ko wóolu boobaa suñu démocratie moom mooy nekk en péril kon je crois que enjeu bu gën a rëy tey mooy euh, ñu mobiliser wu pour garantir indépendance bu magistrat yi fexe ba nguur gi euh, n'est-ce pas bañ di teg pression seen kaw bañ di leen sanctionner yaa sanction yoo xam ne teguñu ko fenn n'est-ce pas je crois que loolu lu am solo la. waaw yaa ngi wax sax wàll possibilité de solution ci waxtu woo xam ne ku ci nekk li nga màtt yaa ngi ci dem nañ sax ba yenn ressort yi bu ci mel bu Dakar wax ne ñoom na fi kii di Maître Malick Sall daal jóge su ko defee ak dal mun a am. waaw je crois que vraiment euh, loolu position ressort Dakar la ñun li ñu wax rek mooy na Malick Sall arrêté procédure bi nu mu gën a gaawee pour que jàmm mun a dellu si ndax li andi li yëpp tey mooy procédure bi su ko arrêté woon jàmm dellu si rapidement diggante magistrat yi ak euh, euh, pouvoir exécutif je crois que loolu la ñaan ñun en tant que société civile en tant waaw que li ñu commencé nañ ko bañ ndax mali Sall lu mu commencé tey beneen keneen ministre bi fi nekkoon tamit suñ ko ko santé mu def ko ah ndax ñëpp xam nañu ne Malick Sall mënul def lii su dee Macky Sall ci boppam àndu ci kon problème bi pour nous ce n'est pas peut-être Malick Sall en tant que tel problème mooy volonté pouvoir exécutif dans son ensemble pour empiéter ci indépendance juge yi loolu la ñu war a xeex. Seydi Gassama ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a ngeen maa ngi sant auditeurs yëpp di ñaan jàmm section Sénégal. Le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée mènent ensemble dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal des programmes pour maîtriser le fleuve et satisfaire bien des besoins indispensables à leur développement. Grâce à ces infrastructures qui permettent de mobiliser l'eau, L'OMVS contribue à l'alimentation en eau potable des populations, au développement de l'agriculture irriguée, à la sécurité alimentaire et à la fourniture d'une énergie propre et bon marché, et bien plus encore. Ces actions ont des retombées concrètes dans notre vie quotidienne. L'OMVS, un outil d'intégration, un levier de croissance, vous offre Wax sa xalaat 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 lu ñuy waxtaane bokk na ci dem beeg dikki bi l'accident yu daal di tàmbaliwaat rawatina ci wàccaayu màggal gi ban taxawaay lañ ci war a mën a am ak mbas mi ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33. salaamaaleykum allo Birama. waaw. maa ngi lay ziar di la ñaanal yàlla. delloo ziar ginnaaw bi ma sant yàlla julli seen rafet liggéey sub communication. jërëjëf di wax affaire accident yi comme li ñu ko waxee daal man damay ñaan vraiment mbokku chauffeur yi. vraiment nañu nañu daw ndànk dal ndànk. et puis si alkaati nekk si kaw tali mooy police mooy gendarme na leen yombalan affaire bi surtout autoroute yi autoroute malgré autoroute la mais nañ ci def ay barrières tuuti pour gars yi mun a wàññi vitesse bi gis nga comme toujours place ngay gis toujours si autoroute yi la la vitesse tue chauffeur yi nañ daw ndànk dal ndànk. jawul ñuy yàkkamti laalo bë euh, bëgg a def mille courses laalo wax li nga liggéey si at bi yëpp nga bëgg ko liggéey laalo sëy magal bi kese loolu moom baaxul ay doomu aadama ngeen di yàpp affaire mbas mi nag li may ci wax mooy hmm. nag population bi dañ gën a góorgóorlu laal takkum masque yi nañ respecté vrai vraiment les mesures de barrière waa Kër Docteur lu ñu joxe. parce que waa kii waa wér gu yaram ministère de santé def lépp lu mu war waa plus particulièrement les docteurs du Sénégal képp loo xam ne personnel santé nga. vraiment ñu ngi lay jàpp yéen ñu ngi lay eh, ñu ngi lay jàpp yéen vraiment liggéey bi rafet bi ngeen def laala ci ci mbas mi nii nañu gën a góorgóorlu laala jàppale état bi état bi lu ne def na ko laala pour mbas mi mu ne wàññeeku actuellement ñu ngi si laala rawat na so président de la monsieur Macky Sall lu ne instruction bu ne joxe na ko fii moyen bu ne teg na fii waa Kër Docteur pour ñu mën a liggéey laal liggéey nu mu ko war a léegi nag population ñoom tamit doo a takku baax a baax a baax takku wax loolu laa ma ci wax xanaa di la gërëm di la ñaan Sow ca Fuladu ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 salaamaaleykum allo allo yokkal kàddu gi wala yegsiwul ñu jël keneen ci 88 euh, salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Birama. waaw. waa kooku. kooku de Maram Faye la di wootee fii Colobane. Maram Faye Colobane waaw. waaw ah, di nuyu Aliou Diouf naa ko dégg lool. bon di ñaanal ñi màggal yi ñëpp euh, yàlla dara ci jàmm ba ñu dem ci màggal ak jàmm ñibbisi ci jàmm ak salaam loolu daal la ñuy ñaan bu baax yal na ko yàlla euh, di wax itam safar ñu def ndànk rek moytu euh, respecté leen seen code de conduite wax mhm. wàññi li ñuy daw boo leen sonn nga noppi nga noppalu dem wut keneen koo ko jox ci euh, bi itam takk der itam ñu gën a maanaam seen liggéey daal ñu seen liggéey parce que man jamono yi la passé dugg naa ci benn oto jëm Thiès. dañ hmm. euh, ko trois fois mais man li ma jaaxal mooy euh, ñi ko arrêté man gisuma leen sax sëfër rek laa gis mu wàcc dem wax ak ñoom ñëw taalaat dem xooluñu sax lan moo nekk ci oto bi xooluñu ndax sëfër bi am na pièce yu valable xooluñu oto bi ndax am na visite technique wala quoi que ce soit. moom ñoom daal buñ la arrêté rek waa ji ci boppam sëfër bi mooy wàcc dem wax ak yow nun nun xaw ma nag lu ñuy wax eh, ñoom ak yàlla la eh, ñoom ñoo ko xam mais waa ji day ñëw avec loolu daal lu ma jaaxal la ci seen mbir ñoom te jàpp naa ne oto boo ko arrêté eh, muy daw war nga xool ndax pënom ji baax na xanaa yor brèche bi la sax bi moom nga yor làmp nga nit ndax pënom yi baax na ndax am na visite technique ndax am na li oto war a am yëpp pour daw wala lan moo nekk si biir oto bi ndax yebuñ ci ay lu ñuy jël wala yëfu jàmbur wala arme wala leneen mais man loolu mosuma ko gis. Hmm. loolu ci ñoom rek laa ko gisee. bon di wax nag ci mbas mi euh, pour terminer rek euh, mbas mi moom euh, yàlla na fi yàlla jël bépp maanaam luñ ciy tere rek ñoom état bu Sénégal ñoo koy njëkk a def parce que dinañ fi ay oto yu ñu chargé ba mu fees del del del ay nit dugg ci. di di teeru président Macky loolu jàpp naa ne bokkul ci luy dimbali maanaam médecin yi nga xam ne ñoo yore mbas mi ñoom dañuy wax ba sonn mais ñoom lu leen neex la ñuy def ñu ngi organiser seen fête lu leen neex daal ñu ngi koy def jërëjëf. jërëjëf euh, Colobane Maram Faye ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 salaamaaleykum allo. allo. aha sëñ bi. allo. sëñ bi noo tudd ak fooy wootee. man da dama nëbbu tuur bi. Hmm, mbaa doo fi wax liñ la xeeb. maa ngi wootee Dakar. waaye ca waa bon man suma doom dañ ko tëj kaso. Hmm. ñu demande liberté provisoire benn yoon. Hmm. sëñ bi juge yi d'accord ni. sëñ bi kii mun na am liberté provisoire. allo. waaw. aha loolu bàyyil bàyyil ba suba suba abul tem boo duggee suba incha allah nga dugg ci loolu. ma bàyyi ba. bàyyil ba suba ba ëllëg. tey dañoo am thème bu ñuy waxtaanee quoi ba bu subaa boo duggee rek. incha allah waaw mais justement ci problème bi la pour montrer. waaw pour montrer. ñu jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 accident yi la ñuy waxtaanee dem beeg dikk bi ak mbas mi. ci 88 628 98 98. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi. Alaaji Birama a nga def. sant bu baax alhamdulilah. Moussa Ciss Moro la. aha Moussa Ciss waaw. lépp lu nuyoo waa Moro la ah. waaw ñoo ngi leen di fay. ci Nicolas émission boobu muy def ak euh, Maodo Seck. waaw. ñu mbokkat catholique nee nañu bëgg nañ ci lool quoi. wax nga dëgg. ndax bu ñu defee ba catholique di recevoir musulman ñuy waxtaan. Mhm. nee na day indi loolu jàmm la quoi. waaw ma ñëw ci waxtaan bi nag léegi. Touba dafa sori. ñii dem yàlla na leen yàlla yóbbu rawatina ñu nekk moroomam ñii dem yàlla na leen yàlla yóbbu delloosi leen ci jàmm Tuubaa dafa sori oto bu jagul borom bu mu ko yóbbu day indi pan ci yoon bi kuy dem bul nangoo toog ci kaw Tuubaa dafa sori toogaay ci kaw naaj bi dina la loolu maa ngi koy dénk ñiy dem kuy dagg paas duggal ci biir mooy sa jàmm de képp ku la ko waxul nga yëg ci kaw bu la doon may jéeye buy am yaay njëkk a dem si yoon yan ci yàlla musal hmm. mbas mi nag gis nga nee nga tey aéroport ñeent wàcc nañu buñ ko jàppoon nii nag ba balaa màggal ah du baax de quoi yan yàlla dimbali ba màggal gii paase benn mbas benn yokkute ba a amati hmm. yaakaar bi ñu ci am nii muy wàññeeku yàlla na wër Sénégal yépp muy wàññeeku muy wàññeeku ba jeex takk ku wóolul sa bopp bul dem màggali ku wóoluwul sa bopp ci wér gu yaram bul dem màggali hmm. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah Moussa Ciss la ñu daal di jël keneen ci ligne bi biti réew 33 841 22 33 ci biir réew mi 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum salaamaaleykum. maaleykum Bàcc. Bac si waa Kër Madaro. maa lay nuyu di leen ziar. ñoo ngi lay fay. di delluwaat di jaale saa si mbubb ak waa xombal yëpp. Mhm. di ñaanal Sénégal yëpp jàmm. Mhm. di ziar nag njabootu Seydou Laaji Maalik si gépp leen ñaanal jàmm. Mhm. di ñaanal suñu yi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñu ne ci àll bi. ñoom léegi ñuy bay tamit aussi yàlla na ko yàlla eggal ak jàmm te aar ko nag ndax yàlla mi koy mi koy mi koy mi taw ba fii moom rek moom moo ko mën a aar amul keneen koo mën a aar. Euh, Birame. Mhm. allo. waaw bàcc waa. man ginnaaw ba ma ñaanal Sénégal yëpp jàmm maa ngi ziar njabootu si daaj Malick. yëpp leen mhm. ñaanal jàmm man xam mhm. la laay dénk sama mbokk chauffeur yi man foofu laay waxee. Euh, man surtout nawet bi ñu jóge man li may wax ci lu ma xam laa wax ma ci lu ma xamul nawet bi ñu jóge oto yi xuus nañ lu mat ñeenti weer ci ndox bi pneu yi am nañ problème ku ne xam ne pneu ndox moom mooy loolu beneen bi ci topp mooy oto yi euh, roulement yi dinañ am problème parce que xuus nañu. raxas na graisse ba mu set wécc ku ci nekk jëru ngay yàkkamti jëru ngay def lenn jëlal sa temps dama ca sa nekk boo ñëwee sa carte pneu a nga vérifier lu ko changer le say roulement graisse waatul ko changer le say coupelle xoolal say barre de couplement barre de couplement nag boo gisee ñun fi ñu ciy insisté barre de couplement bu rëccee ko oto kii dawal oto bi ak chauffeur bi ak kii lañ ci rëcc kenn tanewutu ci sa morom loolu moo ko pneu ab pneu yi ko su parce que pneu avant moom bu tojee musiba naaru la beneen bi nañu respecté ligne de rive ndax état bi def na wala def ko mais nañu rëdd tali ligne de rive moo lay wan fan la tali pour boo cippeelu ku def boo xamante amu fa yàlla dogal nag obstacle am nga cippeelu doona cirib sa pneu avant droite bala ngay yéegal na bàyyi ba arrière arrière arrière droite wàcc boo ne ni boo defee coup de volant bi day tëdd te ndeyjoor lay tëdd loolu alxaaji Ibrahima Ndiaye. allo. waaw alxaaji. Cheikh Ibrahima. waaw Malick. maa ngi lay ziare. delloo ziar. man la Malick Cissé euh, sa xarit mbir na farxam ma maa ngi ci jàmm. ñoo ngi sant alhamdulilah Malick. ah waaye de moom faanaa ko rek lu wax de xaw dëgg yàlla xam-xam la de wax si loo xam bàcc. Mhm. man moom mbirum suba moom dama si xamul dara man daal si ñaari ponk yi ma bëgg a wax Ibrahima. waaw. mooy si mbirum mbas mi. waaw ay man jàpp naa ne gouvernement bi la ma ko waxoon ñoo tëjoon ñoo tëjoon bunt bi ñu jël caabi ñu ñu jël caabi ñu bunt bi beneen bi ci topp hmm. maa ngi ñaanal ñi nga xam ne dañoo war dem Touba ñun ñëpp yal na yàlla yóbbu ñu ci jàmm nit ñu ci jàmm benn bant sax ba mu damm ba benn damaat du ñàkk ba kanam di tàmbale ko bisimilah rahmaani rahim yeggul si alhamdulilah rabbil alamin te mu di Sénégal yëpp nag hmm. jërëjëf jërëjëf si Cissé ca Medina Park ñu daal di jël keneen ci liñ bi li ñuy waxtaane bokk na ci Euh, circulation accident circulation dem bëgg dikk bi nees la ñu mën a def ba daal di ko wàññi rawatina ci jamonoy événement yi ak lu jëm ci wàllu mbas mi biti réew 33 841 22 33 salaamaaleykum. allo waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ Birame na nga def. sant bu baax alhamdulilah kooku. Barikawa. waaw ma la lom diisi ba askan bi. lom diisi waaw. yaa ngi ci jàmm. ñoo ngi sant yow nag. waaw waaw waaw xam nga ni ni ci jàmm rek mais dëkk bi moo xaw naq naqare rek dina am. Mm, waaw dëkk bi moo xam su naqaree rek jàmm ji day xaw a tuuti. na mm, mm. yàlla yàlla saafara lépp rek. amiin eh, waaw yaa ngi waxtaanee mbirum accident yi ah. Mm-hmm. accident yi lu koy saafara moo nekk tali yu baax takk der yoo xamante ni du laal xaalisu commission Birama gis nga gis nga tey gi nii borom policier boobu noonu yor moto ñu foto ko ak ay xaalis hmm. nga dégg ñu ne waa ji ko publié woon or nañ ko police lu tax borom moto bi jàppuñ ko laaj ko xaalis boobu noonu xaalisu lan la hmm. tey gi ñaata caméra ñoo nekk ci dëkk bi lu tax tey gi nii Birama ñoom waxuñ ne képp ko gis policier ñu koy ger firmer leen ko te fee si États-Unis am na policiers yi nga xamante ni def nañ naka sutul noonu vidéo moo leen daan bàyyi ña sax nee na suñ buggee suñu réew mi jub foog ñu am président bu jub ak gouvernement bu jub mais président bi jubul gouvernement bi jubul am na takk der yi nekk seen biir jubuñ waa réew mi biraama nan lay jubee biir biraama biraama nga ñëwaat si wàllum corona bi yow yaa ngi wax ne loolu di si na takk masque yow biraama nga takk masque Adama jël takk sa masque léegi ñun tey xool suñu président ñëw fi charge kii corona bi moo nekk lu Bañes waxoon rek Bañes nee na président su jubul dara mënul jub Birama ñun xoolal lu ñuy wax instant yi nii ñun waruñu wax tey xoolal policiers yi waruñu wax tey gi état bi askan bi dañu war a waxal askan bi ñoo war a jël seen responsabilité. responsabilité xam nga la nañ booloo def ay manifestation pour Macky Sall démissionner dañuy wax dëgg Birama Birama réew mi doxatul ci dëgg. démocratie bi fépp xoolaay Birama mi ngi métti. démocratie la ñu nekk l'homme di si ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Birama. dañ lay nuyu lu bari Mamadou Medor. Medor waxal ñi sa ginnaaw na yaa mujj. waaw waaw kon boog euh, gaañu ñi xaar ba beneen yoon. ba waaw. waaw waaw waaw ñu yéene ñëpp jàmm di ñaan jàmm rek. xam nga dañ toll moment boo xamante ne bii defe naa ne li ñu war wax mooy maggal leneen luñ ci wax tamit ñu ñaanal ñu dem xam dañuy dem màggal ñu dem ci jàmm ci jàmm ndax diine ji moom benn la wax dëgg yàlla inna diine àndalaa islam waaw diine bi gën a egg ci kanam yàlla mooy diine islam mooy dëgg waaye dama ci wax ne ñiy dem di màggali nañu ànd ak dal te xam ne yàlla moom kuy wuti da nga war a ànd ak dal bañ ko bañ sax booy julli ji jumaa bul daw waaw bul daw bul waaxu waaxu boo boo xam ne boo eggee doo doo doo ca ànd ak uh, dal lépp rek islam dafa laaj ba uh, pour nga ànd ak dal rek ne laa yukallifu laahu nafsan illaa wusahaa yàlla tegul kenn lu mu attul waaye dama ne tamit uh, comme mbooloo yi dañuy daje rawatina feebaru mbas bi nga xamante ni moo dañ ne luwaay di njàmbat moo occupé adduna bi yëpp ba tax na daal nañuy sóoraale di jël jëfandikoo masque yi ak sel ak saabu nga def sa saak nga yóbbaale Ah, di déglu digle docteur te aussi tamit bu ñu dem di siyaare nañ dem bu ñu siyaaree ku tedd ki ah bu ñu dem te ñu sol suñu yére yu jot boo siyaaree boo ñëw nga dem toog sa dal ndànk waaw màggal màggal moom bu ñu koy wax mooy sant la sant la mooy istixfaar salaatu ala nabi yaa xam loo jàng ci aaya wala wala xasida loo si jàng rek waaw lépp sant sant rek sant rek ndax euh, li ñu fi bàyyi ñu sëñ Saliou Mbacke daan wax naan mooy jaamu yàlla waaye nag mbir yi li ñuy waxtaanee ñuy wax ci loolu bañ di boole ay njiit réew meeg ndax président de la République la man yëpp mu ngi koy def xalifa général de Mouride gërëm na ko xalifa général Tidiane yi gërëm na ko waaw ba te muy def campagne dañu ko ñaanal ne ko da ngay am ndam ba tax na daal Sénégal benn bopp la kenn nu ko xar ñaar ñii wax ñii yëpp ay par parloo par politique waaye politique lañu ko passé liggéey la ñu wax président Macky léegi benn at la quatre yi pour mu liggéey la nañ ko bàyyi mu liggéey ñaanal ko jàmm li mu mën yëpp mu ngi koy def waree fa mu ngi koy def ku ne xam na loolu mu ngi fekk ci askan wi si lépp daal jërëjëf. jërëjëf Mamadou Medor ci moom la ñu yëkkatee jotaayu xibaar yi sant leen gërëm leen gërëm bu baax Pape Abdoulaye Dieye mi féete woon ci xarala gi Sud Éducation moom moo ñuy wutu ci togg gi buñ ca noppee bu juróom-benn waxtu jotee soxna Marie Rosalie Ndiaye ñëw ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon. Mali Mauritanie Sénégal ak Guinée lëkkaloo nañu ci biir organisation pour la mise en valeur di fleuve Sénégal ci taxawaay ci ay programme yu am solo ngir jëriñoo lii di fleuve Sénégal te saafara ay soxla yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk te mu jëm ci développement ci ay infrastructure jumtukaay yuy tax ñu mën a am ndox OMVS taxaw ci jàppale population yi ci am ndox mu sell waaye tamit lii di mbéyum roose mi ñëpp mën a am dund gu doy sëkk ak énergie boo xam ne day yomb ci marché bi ak yeneen ak yeneen muy lu ngeen di yëg ci seen dundin bés bu yàlla sàkk OMVS ngir lëkkaloo ak suqaliku moo leen doon may seen émission wax sa xalaat